taxaw ndax ñi nga xam ne ñoo di FDS yi ñoom seen liggéey la ñuy daal di def te bépp ordre boo xam ne daal dinañ leen koy jox dinañ ko exécuter comme na mu ca waree ngir daal di mën a wëyee ndigal bañ leen daal di jox waaye nag waa F24 daal def ab communiqué bu am solo daal koy publier di xam ne ne dafa am yu bëree bëri yoo xam ne faw ñu daal ci addu mu ñeel mbirum Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr procès bii ñu jëm le 16 mai ñoom nag ci seen bataaxal ñu ne ki di a ñoo gis na ñoom état du Sénégal bëri na ay yooni yoon yoo xam ni respecté wuñu ay droit yu Ousmane Sonko ñu ne nag loolu bokk na ci li nga xam ni saa su nekk dafay indi ay jafe-jafe ci réew mi F24 nag ñu ne ñoom dañoo considéré que levier bi nga xam ne moo gën a am solo ci am réew moo di justice kon nag saa su ne daa war a nekk lu équitable lu impartial lu ñu dul utiliser ngir xeex benn doomu aadama tax na ñi ngi woo ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñu dénk lu jëm ci wàllum justice ngir ñu def preuve de sérénité de retenue waaye itam d'équité maanaam ñu tollale képp koo xam ni da nga di ab sénégalais ak foo mënti nekk rang boo mënti occupé ak ci parti politique booy mënti milité ñu jël lépp teg ko ci yoon ba nga xam ni sénégalais bu ci nekk dina ci daal di gis boppam ñoom waa F24 nag ñu ne ñi ngi regretté bu baax a baax que Ousmane Sonko ay dossier di teglo bu jàll rek beneen ñëw te gis ci fast track boo xam ni maanaam gaawaay guñ mësut a gis fenn ba tax na ñoom ñi ngi fàttali ne président Macky Sall jot naa éliminer ay candidat ci lu ñeel wàllum élection présidentielle ñooñee nag Sall ak ki nga xam ni moo di Karim Meïssa Wade ñoom ñu ne dinañ taxaw temm ngir défendre Ousmane Sonko ba du nekk ñetteel bi nga xam ni day dugg ci boobu le ñu ne nag lépp loo xam ni mën naa tax ay doomu aadama fii ci réew mi di mën a perdre seen éligibilité te dara waralu ko lu dul wàllum politique dañ koy daal xeex te duñ ko accepter cette fois-ci encore pour Ousmane Sonko. ba tax na nag ñoom am na ñetti poñ yoo xam ne nee nañ faw ñu daal di ci taxaw bi ci njëkk mooy Ousmane Sonko mi nga xam ni a du mën a dikk xañ ko ay droit wam ak ay ñoom nag ñu ne li nga xam ni moom moo ñeel Ousmane Sonko bu dee day war di dem léeg-léeg tribunal dañ ko war a accompagner mu waree ba du am benn jafe ci yoon bi ba daal di fay yegg waaye moo gën foofu ñu koy indil ay problème yoo xam ne léeg-léeg fa muy mujjee du daal di neex ñaareel ba nga xam ne dali nañ koy jël comme ab ponk nee nañ ñoom ñi ngi fàttali autorité yi maanaam ñi yore nguur gi ak ñi yore wàllum justice que ne Ousmane Sonko sénégalais la comme ñëpp nañ ko garantir lu jëm ci wàllum intégrité physique am maanaam yaramam jëmmam kenn du ko laal kenn du ko indil benn violence te lu ñeel wàllum ay àqam ak i ko respecté jaarale ko ci procédure boo xam ne lépp dafay équitable ndax bu fekkente ni procédé daal di am nañu respecté lépp loo xam ne Ousmane Sonko am na ko ci ay droit ne nag loolu dañ cee tiit lool ndax dañoo gis boobu ba tey Ousmane Sonko pour ñu respecté ko lu ni mel dafay jafe lool donc bu mujj bi nag mooy ñoom dossier bi dox ci digganteem ak Adji Sarr dañoo bëgg muy moom muy Adji Sarr ku ci nekk ñu respecté la li nga xam ni moo di say droit xam ne nag ñëpp ngi koy tiit mooy teewaayu Ousmane Sonko ca tribunal ba am déet dina am wala du am ax na ñëpp nekk ci tiitaange ak njaaxare Ousmane Sonko nag ñëpp déggoon nañ mu ne dootul wuyooti justice bu Sénégal ndax saa su nekk duñu respecté ay àqam ak yelleefam fan la mbir mi di mujjee communiqué bi mi ngi bàyyeekoo ci waa F24 comité exécutif bi daal di koy publier mu nekk nag loo xam ne du ñoom képp ñoom ñoo ko daal di def ndax ay avocat yu Ousmane Sonko itam daal di nañ def ab conférence de presse fële ca Paris daal di xamle injustement ni ñuy traité kii di Ousmane Sonko. fu wànnent di mujjee ak gëtam lu ci mënti am mooy que ne sénégalais yëpp ñi ngi xippi di xool fan la mbir mi di mujjee Ousmane Sonko ndax dinañ ko jële yóbbu tribunal ou pas kenn xamagul li ci mënti am mooy ca Ziguinchor jafe-jafe yi bëri na fa lool ndax kenn demul kenn dikkul kenn jàngiwul kenn liggéeyiwul ndax ay affrontement maanaam xeex buy dox ci diggante waa dëkk ba ak takk der yi ndaw ñi nag taxaw temm dal di fas yéene défendre Ousmane Sonko ne kenn du ko laal kenn du ko jege am ci ñoo xam ne ñi ngi publier ci réseaux waxee ca njëlbeen nga ne boo moytuwul mën nañ koo exfiltrer jaaree ko ci ay hélicoptère lu ci mënti am équipe bu AGT News dinañ leen ko toppala ngir saasu ne ngeen ci am ay xibaar ak i jàngat yu wér te wóor AGT News.